c'est tous les dimanches à partir de 15h-16h sur Ngaï FM 93.5 FM, animé par le grand DJ Top Connection. Vous aurez des rubriques d'actualité culturelle et des invités rappeurs, reggae man zil di la rap la de rap lay teg du ma sol cayanaar maa ngi teg ba léegi boy non dama maar gis nga nu may rabee ki du yana maar rap la may teg gàddu benn téléphone gis nga nu may tegee boy di la téléphone yàgg naa ko teg képp gel bi ko microphone maa ngi teg ba léegi booy gàddu benn iPhone rap la may teg li lan la pontu nu may tegee nigga boy kenn du ma tontu yàgg naa ko teg nigga dama ko fonku rap la may teg nekk si benn kuntu zil da koy teg non du kultu bu ma tëkko ni nga boy di nga yàgg na ko teewal di nga naan sawu unku rap la may teg ni nga bul di seetu Teuf Connect waa di zone la négg yow yow seen gox bi noo du deem ndax ay rappeur événement bëgg bës fi ak di forcé vêtement yàgg dem ci concert yi mais gisuma fi rob ay MC tasuma nekk fi di jaay yow ku wér xam sa baay soo gisee public àll waxal dëgg bul ko raay waa bi noonu baalu waxal ma yambee sën bi yu dafa bëri missionnaire ku ko doon da nga yàgg këti rabbi bopp la laaj booy mais du xël di xël di def laaj booy foog jaddi jaddi waa di sën accident seen drop dina fay rappeuru événement yi ba seen tali laaj faas acca boo ñu dem waa di seen capitaine Sacre c'est ten, Nga may bañ c'est pas l'appel sama rab ko niten pare dëgër boy ni ren aru mbedd yoni, boy my ba may fani benn boy noy ak seen flo ah yooyi c'est man boy ma sa fan boy deete noy hey from ngaay mexe wësëb waari zone king di kayoor baatu baadoola fo réer connexion Mm. Bye bye. There's an egg, an egg in your jar. There's an egg, an egg in your jar. This is a little bit of sad Maria. This is a game is some loho magi see yon. This is a better boy the man magi some see some pretend Bobby yet a junda magin dog. Langa we know that my girl is nasty summer bug. Boy matter, the galley long ko kumai se den hat ker te xel gene hulle si banka wan du ma gene jàngoro ji di ma gàttandu ba sama gaane ma gëral wër di dox fuuf ak nee na ñu toggaale moytu booloo freestyle képp neewul te sa mbir di dund lëb teg sa mbir di dund freestyle comme fi te sa mbir di dund benn benn rek benn benn ya wala fas naaru góor te na xeexal ñaari góor góor moo di sant or xam nga ni nga si tëral moo wax yu bëri léegi jëma ko miis foofu ma kër ma jox pour yóbbu sama niveau si kaw a kaw ma niveau bu egg kaw jàkka bu dégg daal amul fenn man kat wax dégg topp si dugg si oto bis rocci sama bis bu ren def yaay benn bis dama yàgg wóor comme ragoon ma xiif ma gànne bu xiiru si gemmi bu mat seen taat gaa toj sa nen ma jàpp sa bakkat rey la ma niveau ba pare di toog sa kaw sare sa tee sama ma botente am na nita sa sama am ba dama woo am ba doon samay bak yëg si compte bëggal yenn gaay xaar ko mu ñëw projet bi léegi mu teew tuddee naa ko maa ngi si bitch Dama jaga pula semua dia hatta sama pula Dama dafa sama drat Da corona muni Senegal Ah, beri Oke Kristal Birkan dari Oke Ya Ya Ah Ya Ah Yeah Ah Kristal Birkan dari Tor Rio life, അങ്ങേതി മൊപ്പട്ടിനെ പെണ്ണായിപ്പല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട പോക്കുട്ടാറുപ്പിക്കല്ലേ നിവേശത്തപ്പത്തിന് സിനിമ സമക്കാശിനൊപ്പമേ വൈ റബ്ബേക്കാൻ നിൽക്കുന്ന തെറ്റിക്കണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല യാ കഥരിക്കൊരു മാറ്റി നിന്റെ ഉത്തമയാറാം നിന്നുണ്ടോ get hot And I took her to action Some of them drop a cover Real rugby yagi cheese No one get that That's a good enough job Women match to dog Get that proper and dog blame I seen them nigga make that. That's what gonna put. I want to go get rap with nigga keep me in. Yo, yo, uh, green side check. Under the fit nabu. Real rabbi, I need this love and go your kick on. Don't you say nigga drop in casa. Casa me cut. Yo, my nigga. Somebody drop. Somebody drop. Yeah. beat this love. Son del engaño. Corenata, Corena, Corena, Corena, Corenata, Corena, Corena, Corena, Corenata, Corena, Corena, Corena, Corenata. kore nay bambam fo sita kore no amatul joxe loko tulu jigil juma kore na ya warali kore na ñun dañu sonnu kore na ñun dañu dayal kore na ñu ngi ni xamuñ sax jam, ñuy jëm google da foy daf ñu ëmb kore na gaul nga jóge fi ñu ne kore na fa nga sol sol loxo gan, kore na fa nga sol ay max kore na gaawlu nga dem ñun de dañoo sori. Corona Corona Corona Corona kulukusa finola nkanakuta kuliyoko eh. mfone nafa nkolekele korena akafoloku neto akaji yusuku neto nafudadaje bukatano oye bori korona isabari yetta corona ya mfumo moluma. Africa kumbola, iko corona corona na na ngoyeta corona